jërëjëf mais mais est-ce que am est-ce que réellement am na lu lu dese waa état du Sénégal pour ñu daal di euh, defar recours wala dara. yaakaar naa ne su fekkoon ne ci làmb la dañuy naan galgal na ko. dóor na ko ci suuf. wante nag sëlëm baa ngi ci kanam. wasalaam merci merci merci. monsieur des mots en français s'il vous plaît. Bon. la réaction, elle est simple et elle est brève. Nous avons toujours eu le droit de notre côté. Et le Sénégal est un pays qui était sur la rampe de la démocratie. Une caste politique a voulu détruire non seulement l'état de droit, mais aussi la démocratie. Dans mon intervention d'avant-hier, j'avais dit que j'ai bon espoir que dans ce pays, il y a encore des hommes de valeur, des magistrats courageux et honnêtes, qui en dehors de leur personne, ont aussi à cœur le destin du Sénégal l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui se battront pour l'état de droit et pour la démocratie. Le juge de Ziguinchor était dans cette lancée. Et ce qu'il a dit a été confirmé. Il ne peut pas y avoir un mensonge qui perdure. Et l'État du Sénégal était dans l'arbitraire et dans la violence sous toutes ses formes. l'instrumentalisation de la justice ne peut en fait réussir que s'il y a des magistrats qui manquent de courage ou des magistrats qui sont dans le carriérisme. Aujourd'hui, le juge de Ziguinchor a été confirmé. Et la décision d'aujourd'hui aurait dû être prise par la Cour suprême, qui a préféré refiler le bébé. Certainement que l'État du Sénégal qui ne lâchera pas fera un pourvoi en cassation. Et nous espérons que les chambres réunies, avec ces magistrats, relèveront haut la démocratie, l'état de droit, et que les Sénégalais pourront aller dans des élections libres, inclusives et transparentes. Il est temps que ce jeu s'arrête. Il est temps que l'on installe la paix dans ce pays. Une caste de personnes ne peut pas prendre en otage les Sénégalais et dévoyer ce qui a été une conquête de longue lutte et de lutte arrachée. Nous avons ici beaucoup de personnes qui sont décédées, qui ont donné leur vie, qui ont donné leur sang, qui ont donné leur sueur pour que nous atteignions un certain degré de démocratie. Et tout cela était sur le point d'être dévoyé. Mais heureusement, la justice est un pilier, c'est un équilibre dans une démocratie. Et on a voulu utiliser la justice pour dévoyer la démocratie. Mais la justice est encore dans la résistance. Et le peuple vaincra. Toutefois, maître, maître, toutefois, si euh, l'État fait recours peut-être euh, au verdict euh, euh, qui est posé aujourd'hui, est-ce que vous n'aurez pas euh, un certain nombre de problèmes vis-à-vis de, de, de, du recours de l'État au fait à l'avenir C'est le droit de l'État de faire un recours. Mais retenez que l'État a toujours été dans le mensonge. Et le mensonge ne peut pas, en fait, perdurer. A simplement annulé la mesure de, de radiation qui est intervenue euh, et euh, qui, a été pris, prise, qui avait été prise par, euh, par l'État du Sénégal contre euh, Ousmane Sonko. Et le juge a ordonné la, la réintégration d'Ousmane Sonko sur le, dans le fichier électoral. Euh, nous remercions d'abord le peuple sénégalais, euh, l'ensemble des patriotes patriotes au sens bien entendu large du terme, de ceux qui se sont mobilisés pour, euh, pour la justice, pour des élections euh, inclusives et également pour euh, le respect du droit de vote. Parce qu'au-delà de tout, il s'agissait de respecter un droit de vote. Les Sénégalais veulent voter pour un candidat de leur choix et choisir librement leur président en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour moi, c'est important. Le commentaire qu'on peut avoir de cette décision, est, il me semble, être, euh, me semble être très simple. Pour moi, personne n'a gagné. Pour moi, c'est le peuple qui a gagné. Le peuple au sens large du terme, tout le monde a gagné. Pour moi, même les autres n'ont pas perdu. Et c'est pourquoi j'estime que cette décision est très bonne pour tout le monde. C'est un vent de démocratie qui a soufflé aujourd'hui et de liberté. On doit accompagner ce processus dans le calme et je pense que l'État du Sénégal devrait ne pas euh, se pourvoir en cassation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui a décidé. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Donc, euh, nous sommes de la décision. Et nous saluons la réintégration de M. Ousmane Sonko qui va maintenant participer à la présidentielle de 2024. Sans qu'il n'y ait euh, de discours tendant à dire que quelque parti a perdu, parce que tout le monde a gagné, comme je l'ai dit. Ils ont été bons et ils se sont battus. Mais c'est ça les règles du jeu aussi. C'est comme ça que les choses se passent. Personne n'a perdu, c'est le peuple sénégalais qui a gagné. li may wax mooy euh, tey justice sénégalaise dafa ne euh, Ousmane Sonko dañ koy dugalaat ci fichier électoral bi d'abord dañuy rend dañuy rendre hommage au peuple sénégalais parce que quand bu justice waxee peuple bi moo wax parce que dañu naan ci nasaraan la justice est rendue au nom du peuple ñu ngi euh, tamit gërëm ki nga xamante ni liggéeyam rek la def donte waruñu koo gërëm sax waaye ku def lu rafet da nga koy wax ku def lu baax da nga koy wax muy juge Ousmane Racine Thion tey dugg na ci taarixu réew mi ci euh, histoire bi bokk na ci juge yi nga xamante ni dañu affirmer seen indépendance lii yëpp dafa rafet pour man amul kenn ku gagné pour man peuple sénégalais moo gagné Ousmane ko droit am rek lañ ko joxaat parce que liñ ko jëlee woon jaaduwul woon. juge bi rétablir ko ne ko léegi dangay bokk ci élection yi donc comme je l'ai dit kenn pertul ñun ñëpp gagné parce que ñoom aussi xeex nañ parce que loolu la partie au procès toujours noonu la ku ci nekk da ngay xeex yàlla ñun la jox dëgg bi parce que li yàlla dogal mooy usman Sonko dafa waroon bokk te Ousmane Sonko incha allah dina bokk pour man loolu moo am solo maintenant li ñuy woote rek mooy Sénégal dafa toll ci euh, euh, taarixam ci. Euh, point boo xam ne dañu war a waxtaan dañu war a juboo nekk benn euh, Ousmane Sonko li ko dal métti na parce que yàgg na sonn yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko xeex yàgg nañ ko def loo xamante ni dafa métti mais ku ne xam ne Ousmane Sonko du koo xam ne day fayu donc euh, du nit koo xam ne dafa soxor li ma yàgg a wax rek pense que président Macky Sall bu xamoon Ousmane Sonko du xeex ak moom parce que Ousmane Sonko kenn gënu ko du koo xam ne day fayu du koo xam ne day Euh, day day day day day jàpp nit di ko di ko di ko di ko sonal du koo xam ne day jàpp day day day day jël nit ne doo bokk naa la jaay doole yooyu du du Ousmane Sonko donc li am solo mooy tey peuple sénégalais moo gay moo moo triomphé peuple sénégalais moo am ndam donc ñu ngi gërëm peuple bi te li ñu doon ñaan yëpp yàlla nangu na ko tey mooy que Ousmane Sonko dina bokk ci élection yi incha allah. beneen beneen affaire bi beneen affaire bi mooy état bi am na droit def pourvoi. Mhm. mais ñun dañ koy lancer un appel ne ko pour mu jarul pour pourvoi parce que euh, du sax mënuñu ko mënuñu ko sax parce que jeex na mbir mi moom naka naka jekk jeex na parce que li cour suprême waxoon loolu la juge bi rectifié donc point de cassation bi fàtt nañ ko ba pare donc jeex na amuñu benn chance pour man nañu dem ci kanam ñu ngi ñu joxe loxo ñu avancer après ñu organiser ay élections yoo xam ne fête lay doon parce que sénégalais yi loolu lañ xam.